Euh, dañu xool xale yi nga xamee ne classe bu ne xale ba fa gën a jàmbaare gën faa nangoo jàng muy xalaqaati quraan yi classe bu ne xale ba fa gën a nangoo jàng danañ ko jox euh, paas paasam pour mu tabaski ji daara ji dana ko jox paas muy am neexal école ba tamit tànn nañ fa ñeent gone yoo xam ne dañ leen jox ay neexal ci ñoo xam ne ñoo raw ca classe ya fa nekk ki leen koy jox bala maa tàmbali sëriñ Taala Mbay kon man ngaa ñëw ma rappel gone yooyu nga jox leen seeni neexal bàyyi taala bisimilah ana xale bu ñuy wax sëriñ Seck tamit jàng ci bàyyi sëriñ Seck xale bu ñuy wax sëriñ Seck na ñëw nii tamit jàng ci bàyyi sëriñ Seck taxawal nii yéegal ci kaw yéegal taxaw nii xale bi kalaas bi muy jànge bàyyi sëriñ Seck wax na ne moo fa gën a nangoo jàng wax nañ ne kalaas ba muy jànge moom moo fa gën a nangoo jàng moo tax bàyyi taala yégal ci kaw bàyyi taala mbay mii koy jox neexal bi moom yaakaar naa ku xam bàyyi sëriñ xam nga ko xam ma liñ ànd ci biti waaye liñ fekke ñun nga xam ne ci biir daara ji lépp lu ngeen gis muy dugg ci daara ji ci moom mi lay jaar lépp lu ñu def ci daara ji ci moom mi lay jaar waaye amul benn yitte daara ji boo xam ne mas naa tage ci loxoom lépp lu daara ji soxla rek moom mii lañ koy wax mu fexe ba loola sotti sinam gën a gaawe lépp sëriñ bàyyi sëriñ dëkk koo jox teg ko ci loxoom moom mooy bàyyi taala mbay mi moo tax neexal yi moo koy jox xale yi aywa jox ko rek mu dem demal ne demal taxaw ne bu la joxee taxawal ne jëlal taxaw leen taala sekk bismillah moom itam sëriñ moo du Diom nee na classe ba muy jàng moo fa gën a nangoo jàng lii nag ab soññee boo xam ne ni koy defee ci sëriñ yi daara yi di def ci ñëpp ba ci xale yu ndaw yi jàng sax am di mbay xaadim Thiaw moo koy jàngal sëriñ xaadim Thiaw moom itam na ñëw wax nañ ne kalaas ba mu nekk ci an mi ci at mi nag laay wax moo fa gën a nangoo jàng li borom li jàngale katam seet seetlu sëriñ Mbacke Seck sëriñ Mbàkke Sekk ci Ousmane si lay jànge Ousmane si wax na ne xale bii kalaas ba mu nekk moo ëpp gën a jàng ci an mi Mouhamed jàng sëriñ Abdou Lahad moo koy jàngal moom itam wax nañ kalaas ba mu nekk moo fa gën a nangoo jàng ci an mi Mouhamed jàng bàyyi Saalixu Jaañ mu mag na jege si bàyyi Saalixu Jaañ mu mag sëriñ Mbay Gay moo koy jàngal moom itam wax nañ ne classe ba mu nekk ci an mii moo fa gën a nangoo jàng Fallou Seck mooy Fallou ci mu leen Mouhamed Gueye moo koy jàngal moom itam classe ba mu nekk moo fa gën a nangoo jàng Mbayang Diop soxna jaara moo koy jàngal moom itam classe ba mu nekk moo fa gën a nangoo jàng Cheikh Ahmadou Kane Serigne Mañaaw Fall moo koy jàngal moom itam classe ba mu nekk wax nañ ne moo fa gën a nangoo jàng Fallou Dia Moustapha Jamil moo koy jàngal moom itam wax nañ ne kalaas ba mu nekk Fallou Dia laa wax de ana Fallou Dia yow la waaw Fallou Dia Moustapha Jamil moo koy jàngal wax nañu ne classe ba mu nekk moo fa gën a nangoo jàng fukki xale yi ngeen gis mooy fukki jàngu yi nekk ci daara ji ci kalaas yi alquran yi ku ci gisul sa doom boo demee bay boo nga soññi ko xam ne am na ku ko gën a góorgóorlu ku ci gis sa doom tamit boo demee bay boo nga soññi ko pour bu ëllëgee mu jëlaat ko jërë ngeen jëf man ngeen a wàcc man ngeen a wàcc bu ñëwee ci ekool ba am na fa ñeenti gone yoo xam ne tamit wax nañ ne classe yañ nekkoon sa examen yañ doon def ñoo fa jiitu muy xamsatu saar bisimilah ana xamsatu saar xamsatu saar bu fekkee mu may dégg na ñëw abdul ahad silla anamu moom itam na ñëw nekku Moustapha Touré Jili Seck ana Hamsatu Sarr kon bu dee ci école ba tamit ñeenti gone yii wax nañ ne ñooy ñi fa jiitu ca examen yañ fa doon def ku ci gisul sa doom tamit boo bàyyi bàyyi boobu ëllëgee nga soññi ko ku ci gis sa doom nga soññi ko tamit bu ëllëgee mu nekkaat ci des na kenn xam naa mooy xam sa Saar bu ñëwee rek incha dana ko jël si baax na kon sëriñ taala jaajëf ñu ngi lay jaajëfal mën ngeen a dellu ñu soog a continuer. Euh, xam naa kàddu yi may yëkkati dafa mel ne taa bi lu bare bare da cay dem te xëy na sëriñ Fallou dana ñëw alaaj sëriñ Seck tamit dana jël kàddu xëy na ñoom bu ñëwee la ma bëggoon a wax mën nañ saa wax lu bari. moo tax dañuy tënku kàdd yi ndax liñ bëggoon mooy ba liñ bëgg ba léegi mooy buñ julli jéere duñ dellu siwaat programme bi jeex benn xal rek ñu dese kàddu yi may wax na dama koy tàmbalee ci sant borom daara ji ndax tey daanaka buñ ko santoon menn moom rek dem sant nañ ñëpp ndax tey ku fi teg sa tànk rek ci ay taxawaayam moo tax nga teg ci sa tànk tey jii di teewlu lii kon moom rek buñ ko santoon doy na sëkk sant gi ma koy sant nag dama koy seedaloo sama borom santuma ko ngir bëgg ci moom dara santuma ko ngir ñoom ñoo ma wax ma sant ko déedéet sant goo xam ne xale bu gën a ndaw ci daara ja bu ñu ko joxoon micro bii bu taxawee fii wallaahi mën na koo sant ngir liggéey bu mucc ayib bin def ci daara ji te lépp ngir alxuraan moo tax mu def ko amul lenn lum ciy wane ci jëm cee feeñal boppam gis ngeen bis bii ñu def wóote na ak yeneen bis yu bari daara ji def ko ngir wane daara ji defuñu ko ngir wane ko moom mais bis bii ñun ñoo ko sàpp biñ fi ñëwee xam ne daara ji dafa yeyoo am ab bis ñu sàpp ko si ñoom dañ koo gàntal ba sonn dem ba xam ne mënta ñàkk ñu fekk suñu si kon ñoom li ñu liggéey wuñ ci dara lépp dañ koy def ngir yàlla biñ ñu si fekk see bis bi ñu ko njëkk amal ci 2013 le 25 décembre tey jii mooy fukkeelu yoon buñ koy amal ña ngi ko tàmbalee woon ci ñetti gone ba yegg fii tey lépp nag ci ay taxawaayam la moom mee kon moom daanaka mënuñu koo sant ndax xam naa li ma xam ci moom bari na fii ñu fi nekk ñoo xam ne xëy na ñoo ma ëpp luñ ci xam waaye moom ña ngi koy sant santuma ko ci turu daara ji waaye maa ngi koy sant ci turu daara yi ci Sénégal yépp a ko gërëm ku mën a àgg ci moom ak ku mënta àgg ci moom ñëpp gërëm nañu aw doxinam ma leen di xamal na nag fii ci biir daara ji moom fexe na ba daara ji ni ngeen gis tabax yi mucc ayib fexe na ba dund gi mu mucc ayib fexe ba wéru xale yi lépp mucc ayib fexe ba xale yi nekk ci condition yu baax jàngalekat yi leen di jàngal mu fexe bañ nekk ci condition yu baax jàngalekat bu ne ma ngi jëflante yow loo xamee ne dangay jàpp ne yow rek la koy defal ci ay taxawaayam yu rafet kon sëriñ bi ñoo ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal borom bi subhaanahu wa mu gën koo sàmm sàmm alalam sàmm ak njabootam dafa feeñ ci moom nag li yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne ni'mal maalu saalix lil ray lil mari saalix yonent bi nee na woon alal ju baax baax na lool bu fekkee ne nit ku baax moo ko yor gis ngeen mbokk yi adduna bii lu fi taxaw alal moo ko taxawal bu dee lu bon alal la bu dee lu baax alal la mbooleem mbon gi fi nekk boroomi alal ñoo koy suuxat pour muy màgg waaye lu baax li fi nekk tamit boroomi alal ñoo koy suuxat pour mu màgg alal yi nag benn la alal ji mën naa baax mën naa bon ki ko yor tamit mën naa baax mën naa bon moo tax yonent bi dem woon alal ju baax ci loxo waa ju baax loolu dey baax na lool kon ña ngi koy ñaanal wërsëgam yokk wéram yokk léppam yokk waaye tamit di sant ñi nga xamee ne ñoo dox suñ diggante moom bu ma nee ñi nga xam ne ñoo dox suñ diggante moom ku mel na Baye taala mi woon fii wax naa leen léegi taxawaayam waaye di sant ku mel ne Serigne Fallou sekk male Serigne Fallou Seck yitteem ci daara ji ak taxawaayam foo ko takk daanaka nekkul lu ñu mën a tudd ki koy mën a xam daal mooy ku yeewoo ci daara ji weer wu ne dana taal otoom jóge Dakar ñëw nekk ak ñun ci naaj wi ñuy sottante ay kàddu ak ay xalaat ngir luy doxal daara ji ba jant so mu taala mu taal otaam delluwaat amul benn yoon bu mu koy jëlal an mi benn yoon laa ci gis boo xamee ne da koo jëlal tam tommee woon ak yaatal mbindum quraan mi bi yaatal mbind mi jàllee mu ne da koy fay dafay ñëwaat weneen yoon amul benn bis boo xamee ne dana ko jëlal weer wala daa taal otoom ñëw ma xamal bàyyi sëriñ na sañ sëñ Fallou liñ ko dénk matale na ko sëkk ba mu fi nekkee ba léegi dégg déggagoo benn jàmbat bu jóge ci kenn ci ñi fi nekk jëm si ci yow ngir moom ñuy jàmbat ci moom dara liñ ko dénk matale na ko taxawaayam mën na sëkk bu amee li ñu réccu ci moom mooy lim ci yéex a dugg mooy xëy na li mu ci yéexe taxa taxawa ni mu yéexe taxawe taxawaay boobu bu ñu amee li ñuy wax moom la ñu réccu waaye taxawaayam mën na sëkk lañ ko dénk matal na sëkk loolu ñoo ngi la koy seedaloo di ko ñaanal moom itam yàlla sàmm ko may ko wér ba lii mu taxawee mu gën a yàgg te nii mu ko taxawee fii bu ngeen gisee gone yi sol bulus yu bulus yu wert yi am na daara jum ubbi ca Touba sura taxawal ko fa ku ñuy wax sëñ Abdou Khoudous moo ko yor mooy gone yee ngeen seen ñu sol yu wert yi te ñëw ci bis bi ñoom itam ni mi saytoo fii lay saytoo foofa yor fa daara kon moom bëgg-bëggam dafa nekk daara ba pare tamit mu jege alaaji sëriñ lool ci mbokk te xam na lii bëgg na ko waaye mënul di ñëw ak a dem mënu koo taxawee mu yër jëlal ko ko kon taxawaayam rafet na wallaay laasim kat yi fi nekk ak liggéeykat yi ñëpp gërëm nañ taxawaayam ak seedeel nañ ko bëgg bu bëgg li muy def loolu ñoo ngi koy seede kon sëñ Fall loolu laa mën a wax ci moom léegi nag bu ñaari taxawaay yooyu jàllee taxawaayu ñetteel bi war a am bi ñu war a soññ mooy waajur yi nit kët duñ ko yoral rek mu bàyyee ko boo gisee ku la yoral tamit ba nangu laa yoral war ngaa fexe yow bala nga man tamit nga nangu koo def mas na maa dégg ci bàyyi sëriñ mais genn kàddu goo xam ne ba léegi duma ko fàtte muy wax ne dafa mas a dem ci benn doko docteur di ko ñaan am lu ko doon ñaan docteur bi ne ko bul ñaanate ku man wërta ñaan ne ko saa yoo ñaanee bañ may la jël nga palaasu kuñ waroon a may nee na moom booba ba léegi la bàyyi di ñaan dara kon nag waajur yi maa ngi leen dénk loolu nit lim man da koo war a def lëm mënul ñu soog ko koo defal képp kuy andi sa doom si daara ji daara ji ku ne xam ne dugg fi yombul ñu bare ngi taxaw ci bunt bi bëgg a dugg mënuñoo dugg ñu bare ngi bindu ay at ñaari at duñ mën a dugg kon nag booy dugg si daara ñëw laaj sart yi ñu ne sart yi lii la ndax ndax danga ko man nga ne waaw ñu jëlal la sa doom nga dem ba ci biir mënatoo ko wala nga man ko nangoo koo def nangootoo koo def loolu day jaaduwul daara dafa am ci sart yu muy dox loolu sëriñ yi daara yépp xam nañ kuy dugg ci daara dana sonn ci laaj sart yi waaye day nga gis waajur bu dem ba ci biir mu ne waaw nañ ma fàttaliwaat sart yi ba xam maa ngi seen déet doo ko dégg moom kay bu ñu mooy sa kër sa janna ja ana ngi jollina gam ka awna bilay nen du yalla bu bi ma kawa lel jollina gam ka awna la buur bi moo ko wax Qur'aana ngi kem tan ya bari na jàng ko man niw wansun sax fu ya téere bi mooy suñu saafara ni nam mam ba kaw ñu nag moom da kaw saa Quraan a ngi tan ya bari na jàng ko man di waasum saxam fiya réew réew mi jàng leen Quraan bi fonk leen aaya mi wattu leen ëllëg mu romb leen réew mi jàng leen Quraan bi fonk leen aayam yi wattu leen ëllëg mu ràmmu leen kem tan ya baalina ko man liw waxan suun saxan fiya mi baagaraw yi yéen bokk yi alxuraan yitteel ñu leen nuyu di leen siyaare di leen mastaw ci coono yi yoon wi yow ku ñëw ku ne xam nañ la rek li tax a jóg yitteel na la ndax wet goo jaar bëgg ñëw rek ja am na jafe-jafe boo jaaree ngay da am jafe-jafe doo ñëw boo jógee Touba boo ñëw cil maxa da am jafe-jafe doo ñëw man yo mos naa yoonu Bambey sax kër ngànna jafe-jafe la ma dem naa yoonu Bambey ceytu jafe-jafe la fépp fii moom fépp jafe-jafe la kon nag ñoo ngi ñaan kilifa loolu ñu dimbali ñu ci ba yoon yi moom ah, may sa jaar di dem yi soxla loolu ñu ngi koy ñaan xanaa ginnaaw temps bi dafa gàtt rek ma indi ay kàddu yoo xam si xaj na kaddu yu sëriñ la yu may jël di ci wax ci mbirum daara ji waaye bu dee kàddu kilifteef gi nag maa ngi wax ci kilifteef Baay Ñaxal ak i ak sëñ xujja mii kilifa fii moom ñoom ñu ay ñuy kilifaam kon maa ngi wax ci ak kàddoom moom ci mbirum daara ji ci doxin wi ak ñi fi nekk jàpp gi jàpp muy jàngalekat yi ak liggéeykat yi maanaam ñoom ñooy sant rek waaye damay jàpp ñu ñu leen war a sant ndax seen taxawaay bu awee ci yoon ci ñoom la ndax barab moom dinaa weer weer ngay ñëw ah bu la bu jagee ña fa sax ñoo ko jagal kon jàngalekat yi ak képp fii liggéey ñu ngi leen nuyu di leen siyaare di leen sant ci turu suñu kilifa yi daara ji ñëpp nañ xam ne du daara du daaray sëriñ du daaray fal du daara ji wax fu lillaahi la kenn moomu ko xanaa ku bëgg a liggéey yàlla rek loolu loolu la ko sëriñ defee bu ñu ko defee bu noppi yoonam da cee nekkatul loolu baax na nit ñi men koo xam wax fu la ki yor ay nagam jaar fii romb fii di dem bu amoon xale bu mu bëgg dugal mu ñëw ci man moom laay njëkk a dugal ci xale bi sëriñ moom loolu moom booy na ay nopp te man ci loolu laa sax ndax moom itam loolu la bëgg ku fi romb fi daal ne daara ji am na ñuy jàngale ñu ne la waaw nga ne damaa bëgg sama doom jàng su ma la xasee bind ku mën a indi sa doom rek koo xam mën a ci bopp bi xooluñu nag lu mu mën a joxe xooluñu nu mu a joxe ndax day loolu moomuñu ko dañ ciy liggéey rek sëñ da ko fay def liggéeyal yàlla ñun ñu ci biir jàpp ci di liggéeyal yàlla ndax tam mbir moom def rek mënu koo doxal ñii ci def ñi mën leen ñu koy def mooy tax mbir di mën a sax foofu ma maa ngi ñëw ci biir famille bi mbokk yi yoo xam ne ci bu ñu daayee daayee si mut ba yan la nga xam ne kon daara yi maam waar la daara yi maam madun la daara yi képp ko askan ci Taïba nga ñu ñëw gën a jàpp ci liggéey bi ndax liggéey bi du liggéey bi kenn nit liggéey bi du liggéey ku ñu woon ku ñu woon naa la defal li ndax kenn du ko moomut da ngay ñëwal dugg rek loo mën ñu jox la ko liggéey ko ndax gone yi ñu yor itam ñu fexe gone yi ñu former leen ci njàng mu aw yoon bu bu ëllëgee daa ji mu indi seen loxo ndax taxawal lu mel nii ñun ñëpp daanaka mën na wéy nañ bu gënee taxawut bu ëllëgee liggéey bu amoon na fi lañuy ñuy wax te loolu ñaanuñu ko ñun ñi di sonn ñëpp loolu rek moo ñu tax ñuy sonn waaye nag ku am xel danga xam ne doomu aadama moom dana wéyu kon nag nañ indi njaboot gi ku ci am ak njaboot te mën koo indi ñu teg ko ci aw yoon ba bu ëllëgee mu mën ne ci liggéey bi bu mag ñii ñun ñi bu ñu demee mënatuñ ñu ñëw loolu buñ ko defut suñu yaraanga lay doon ñun mbokk yi bu kenn taxaw ne woowuñu ma bu kenn taxaw ne kii ko moom déedéet kenn da ko waaye suñu alal la ñun ñëpp bu baaxee baaxal na ñun ñëpp bu ma nee la neen ah suñu responsabilité la ki ko def ki ko def moom def na li ko war def na lim man ñun tam nañ def liñ man man de loolu rek loolu képp moom ju li ma man daal incha allah li fi koy man dinaa ci nekk waaye xam na doomu aadama moom mënul du mën di wéy kon nañ indi njaboot gi indi leen ci liggéey bi ñu taxaw daara ji ëllëg lii bi liggéey kat li ci mun taxaa di wax naan bu mu laal suuf waaye bi liggéey wut laal suuf daa war a wéy rek kon nag nañ ci góorlu waaye mbokk mu taxaw fee gis ñuy liggéey mu toog rek wala wala mu ne ci leneen sax jàpp ne mbir mi ñii lañ ko jël bàyyi ñii déedéet ku xëyoon tey ñëw jii boo li ma li may def boo ma ko dàqee wallaay xasim du ma fi yendu ndax mu baax dong lañ bëgg ku mu baax na ku mu baax ca baax na waaye li ci gën a néew mooy ki joxe eh, eh, eh, ki def liggéey bi loolu ci gën ci tuuti liggéey bi li koy doxal du loolu mbooloo mi ñoo ñëw jàpp ci kenn ku ne am foo jàpp liggéey mën a wéy muy suñu muy suñu sag ndax alxuraan moom man de amutoon fii tam mu di ko fa neen man moom loolu laa gëm daara jii buñ bu amutoon da nga ma dégg ci yan daara ma ne ci di yëngu man man ndax man loolu mooy sama bëgg-bëgg ma ci nag leneen loolu kon mbokk yi nañ ñëw doxee doxeen woowu rek ñu ko doxee day ñu ko rëcc mukk dañu am yalaanka bu ñu ëllëgee bu ñu demee suñu kilifa yi foofu moom foofu laa ci yem ñëw ci jàngalekat yi li ko suñu Modou Gueye waxee mooy ni ñu daan jox di ko def ay point point yi mi ngi wéy chaque trois mois ñu ngi ko waxee si Massamba Xuma dana ñëw ànd ak Sëñ Abdu Xudoos ak ak Sëñ Abdu Sekk moom mooy dalal Abdou mooy defar lépp ba woo leen ñoom ñëw chaque trois mois rek ñoom dañ ñëw évaluer xale yi nga xam ne xale yi man su ma nekk nekkee Dakar waajur ma woo ne ma sama doom fu mu toll fa ma toog laa nam tey tey nangam la bind tey ab nafaram fa ma toog Dakar dinaa leen trois mois yi lii la nafar loolu nag saytu boobu ñu saytu moom muy Massamba ak Abdou ak ñoom ñu ko seq mu évaluation bi loolu ñoo ñu ko may bu ko defee ni ma ko waxee chaque trois mois su ma ñëwee nag gée xool looyee man la ci ay rëq-rëq ndax ab donkob daal laa comme ñoom la ci rëq-rëq xam naa ko ñu bokk ànd ak ñoom jubati ko kon ñoo leen sant point yi ren dañu ko def xale bu ne ku la mokkalal am nga saa cinquante mille ku am ñetti xale am nga quatre cent mille ku am benn xale ah benn xale nga am am nga cent cinquante mille bi ñu ko defee nag bis nañ ne moo gën fopp point yi ñu doon topp ndax ñun mokkal rek moo ñor na xale yi mokkal point yi lu mu mën a bari bari bu mokkal amul amul njëriñ te joxe gi itam fi ne ñu ngi ci fukki awxa fukki classe benn kalaas rek moo amut ci neexal bi kenn place bu ne am nga ñoo mbokk ñu am na ñett ñu am kenn waaye benn place moom moom ku mbokkul kon xam ne kon loolu moo gën a yaatu mën naa leeral ndax daawuñu ko defee noonu démb itam damaa jiitu bis bi ndax xataa xataayu bis bi dama daan ñëw loolu lépp ñu def ko ci baas bi ñu leen di jox ci baas bi mu jël temps bu bari ren nag ma ne kon damay teel ñëw jiitu ji bis bu njëkk bi ma ñëw muy samedi ji ñoom ñëpp ma dayee ñoom kenn koy la nga moom jox la ko doog a ñëw ci baas bi loolu moo waaye kenn ku ne ci war ñu sensibiliser ñu am benn xale jot na ko ki wajab am ñett ñu mokkal am na quatre cent quatre cent cinquante mille ki am ñaari ñu na trois cent mille ba ñoom ñëpp ñu daj bu loolu jàllee ñi ci école bi muy ñeent muy ñeent ñaari ñaa jàngale français ñi ñaari jàngale euh, arabe kenn kon am nga cent cinquante mille lu bokkut ak nag seen neexa yu tabaski kenn kon am ko kuy liggéey ba kiy togg ba ki yor jur gi di sàmmi am na neexal ndax xam nañ ne ñoom ñëpp lañu ñu war a nekk ñanga ca kon ñu ngi leen ndokkeel di leen sant jën leen gërëm seen taxawaay loolu du dara bu xale bu ne wallaahi xasim jaar nañu xale bu ne un million wala wàllu ko ëpp ndax alxuraan moom amul njëg amul njëg yéen ñi fi nekk di ko def kenn amul seen fay luñ leen jox doyut ndax alxuraan moom amul lu mu jërul ki koy def yàlla ko yàlla dina dolli kàttan wóor na ma ne moom yéen a jim am bu lu mu lu gën am kàttan seen xol dina gën a sedd ndax amul kum jiital ci yéen man xam naa ko ndax mosuma fee ñëw benn yoon ngeen ne ma day fàllu weeree ba nga ñëwee lañ la waxoon ñëwut ab oto oto dañ ma ko waxee oto bi jënd fi ñu toll nii mutation rek moo ci des oto bi daara ji mutation bi moo yeex waaye mi ngi fi mi ngi mi ngi Dakar lenn luy loolu dañ ñëw ñu jàmbar ko te jënd jëfuñu ko amut looy tax nag muy sane sëñ bi nag may may sant taala ndax taala ndax ma koy sant mooy itam man su ma ñëwee moom laa séqal liggéey waaye séquma ko séquma ko sëriñ li ma jële fii moom laay bokk toogal lu ci mën a ñàkk ma ne ko lañ def lii la mel naa ko lañ ko def dara du ca manqué kon taala ñoo ngi lay sant bu baax a baax a baax ndax ndax yow ba nga koy man yow képp yow la man samay wax a bëri dem samay wax a bëri ma ne fii di wax rek te itam nag ngeen jox ma loo xam ne ci mun ma ñàkk wax waaye ba nga koy man kenn fekku la ci kon nag li may wax lu xale rek nit ki daal nay xool ay remplaçant moom itam dem ba mu dee ba xam ne xam ne ne mënu moo duggoo moom ci dugal moo toogoon kon dana bari lu sooxe kon taala ñoo maa ngi lay sant bu baax a baax a baax kon côté boobu mooy dem euh, yàq naa foofu dama ci doy moom xanaa di ñëw ci euh, waajur yi ni ko waxee léegi rek Euh, liggéey bi lu jafe la lu liggéey bi jafe-jafe jafe-jafe nag mel na ne doxal daara ji ci li daa aajowoo moo gën a jafe am na ci la bu ñu ko waxoon nit ñi duñ ko mën a gëm ci ci financement weer bi mën naa cee tuuti ndax ay nit bu ñu seqee mbir euh, di ko leerlante yokkul dara daara ji ñi fi barkeelu année bépp ren li am ren sax mosuñu ko am waaye année bépp huit millions la daara ji ay dépasse am lu bokkut li ñuy yu sew yi six par weer la man maa ko indi joxe dépasse bi fay ñii fay weer woon six millions la at mépp ñii barkeelu li ñu barkeelu huit millions cent et quelques la kon xam nañ ne kefe daara ji moom séenul ab xaalis donte nag ku mën dara defal dara yàqu dara waaye kiy dépassoo weer 6 million te boo demee ca la muy àndal ceeb diwlin ak ak yëfi ngéen yi lu mel nag yi jënd jàppale ko da nga dem da nga dem 7 millions wala wala 8 millions nga xam ne kon li nga jot ci wenn weer li nga jot ci un bi wenn weer yow moo ngi koy dépassé ordonnance xale yi digluñ ci wenn waajur fourniture xale yi digluñ ci wenn waajur kon nag loolu maa ngi gën a dolli delloo euh, soññi waajur yi du jox gi waaye fonk liggéey bi ba ñi fi nekk mën koo fonk foofu la ñuy soññee waaye ki ka fi def moom du nangu sangu tudd loolu moom du ko nangu waaye man mi dama ko dikk man mën maa ñàkk tudd yenn yi ndax su ma ko waxut du mën a leer ci ki war a leer ci moom lii mooy dépassu daara ji kon waajur yi yoo xam ne si moom ma ngay barkeeloo la ñuy barkeeloo muy douze mille ak ko mënut ñun ñëpp a yem ci moom te man su noon jël ki ko mënut te mënut a ñàkk jàng laay jël sax fi ne ki ñu ne mën na maa joxe barkeelu bi kee ñëw ne mën ma ko joxe waaye ma xool ko moom xamul fenn fa war a mën a jàng ji ki mën jox barkeelu du ma ko jël ki ko mënut laay jël am na ci mbooloo mi ko mën naa see joxe misaal ku ñuy wax seen Sidi Sarr seen Sidi Sarr ñëw na yàlla dafa def mu silmaxa bi ma xam ci téléphone la xam mu woo ma ne ma man de ma am sama doom bu bëgg a dugg ci daara ji ma ne ko ah foo dëkk mu ne ma Thiès ma ne ko ah ku la boole ak ak daara ji mu ne ma ah, kooku ñëw tudd waaye seen daara bu mag a mag la bu ne Dakar mu ne bu nekk daa bëgg a jàng ma ah, demal daara béy di li nga bëgg foofu donc nga ko mën amee moom itam maa ngi koy sant li muy li muy am gàllankoor ci bëri yi lépp lenn luy xew daay yi dañu ëmb fi ne démb la ñëw mi fi gisu gisuma koo dégg waaye mi fi amul lenn luy xew te ñëwul bu ñu ci ñëw nag euh, ñi ko man kon ñooñu waxi na ko sa doom man de sam euh, kii yor jur gi fii su ma demee Dakar am une semaine woo ma ko damay woo waaw foofu lu xew ah, lan la mu ne ma ah dama dugg nga ma de ànd kon ku joxe nit moom nan la war def kon ku joxe nit moom mën naa joxe nit rek ne cell bu fekkee mi ngay berkeelu bu mu yaakaar ne doy na déedéet bu mu doon dara da jàpp xale bi moo ñu am na ko bi mu doom ñëwee ak léegi man teguma ko bët te mën na ñaari at yëppoon naa ci woo ko sax ndax booba surveillance ma damaa woo ne ma xale bi mu ngi jooy mu ne ko lan lay jooy waa ah nee na ñàkk ci waajuram te waajur waa waajur waa ngi Tuubaa gii rek mi ngi Tuubaa gii rek la nekk Tuubaa dong la nekk xañ na tële na mënut waaye bu muy dugg itam sonn na lool ngir dugg waaye bi mu duggee itam nag ah mënu ma amut mënu ma ne amut soxla ci doom ji de waaye day surveillance bii day mi ngi fi waaye mosu ko tëgg bët man mi ma ko tëgg bët te woo naa ko téléphone ni ko ah dee fi ñëw doo xool si mu ne man kat léegi damay léegi damay dem damay nawet yi damay nawet yi damay dem nawet yi léegi la ma génn eh, sëñ bi yónni ma ma ah loolu lépp bëgg la waaye doom di amalu ko ëpp bu la jërul lool de man ñun ñu ko joxoon lu tax nga ko yow lan may saw bi jox ji yow tëlee nga dëgg la wax dëgg moom bu ñoon joxee du man la ñuy joxe waaye nag ñàkk yittewoo gi itam nag ñun bu ñu seenoon moom waajur yi dañu ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax yittewoo liggéey bi ak ñu ñu ànd ko ndax itam loolu daa tax ñu sawar daa tax ñu sawar ki la jox ak njabootam boo seenoon mu yëg ne jox na la ko jàpp ca nga jàpp ca bu ko defee lépp mën a baax ndax ñun mënuñ lépp loolu moom maa ngi ko delloo maa ngi euh, maa ngi ko delloo waajur yi xanaa di sant nag euh, waa dëkk bi ñoom ñoo wuuti ci ñoo ñu ci gone yi wuutu ci waa yi gone yi ndax nit moom mënta ñàkk a bu fekkee yow yaa koy laabal bu téemee nga fëtal ko taxawu ko kooko amoo ak payam muy waa Béy di maa koy jox eh, cant gi Moustapha Jóob ak waa këram jox ko sañ métti ak waa këram waaye ñoom daa daara ji ñoom ñoo ko moom seen daara waaye daal jàpp na jàpp gu ne bu dee béy di sekka maa ngi ko jox àlla mii magi mammoor ak mammoor ndax dépense daara ji mammoor moo ko yor moo ko yor su ma ñëwee ci loxom ci loxom laa koy teg mus ñu maa woo ne ma dépense bi nangam dip boobu ak léegi kon nag mooy ñoo itam ñu leen sant bu baax baax a baax xanaa di ñëw ci euh, di ci ndey daara yi wax dëgg ñoo ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax a baax ndax at mu jot rek andi nañ seen yéene muy lu rafet ñu participer ko ci bis bi tey jii andi nañ ci quatre cent mille ñu ngi yokk ndax daaw trois cent mille ñu ko defoon kon nag jur xay bi jur tudd waaye nag mbirum mbooloo la ñi joxe par benn moom du ma tudd seen tur waaye bari nañ waaye nag yéen ñi mbooloo leeral na li ngeen joxe réy na ci noonu jot nañ ci ñu ngi leen sant bu baax a baax muy sonu maam jaaga jëng moo ko indi euh, moom miskan ñoo leen sant bu baax a baax a baax Euh, ba tey ñoo ngi sant euh, Thierno ak Omar ak Cheikh mbay mooy ñoom itam lu ñuy furu yi ak lu ñuy naan ñoo ko ñoo fi indi kon ñoom itam ñu ngi sant bu baax a baax a baax sëñ Xaalim Touré moom itam wax dëgg andi na ak xéewal jàpp lu mu jàppee ci bis bi bu dee sëñ Bas Jaxate ci Touba naka noonu som yi som yi moo ko bëgg tudd ndax xam ne ñu ko joxe bëgguñu ko ndey daara yi bi ñu joxee quatre cent mille rabbi joxaat nañ cinquante mille yoo xam ne si ñii fële xale yi ñoom lañ ko jox maam Mor bu ci kanam nga ñëw ma jox la ko nga jox ko nga joxe ko muy cinquante mille pour ñi fële xale yi sëñ Modou Sylla bu waa indi fi mooy itam ak participation muy sam bu bari sëñ Moussa Diakhaté mooy it noonu indi na fi participation muy sam bu bari ak sëñ Modou Diang bu Touba moom it moom moom maa jël lii waaye chaque koor toujours ma di ko wax ci groupe bi chaque leetu xadar daara jëpp moo yor bis boobu ak ñoom lu lu ñuy naan lu ñuy lekk kon sëñ Modou Dieng yàlla tax nga yàlla na yàlla fay sëñ Bay Jaxate indi fi ab barkeelu moom itam ak euh, euh, Bay Cheikh Fall ñu ñu ñu ñu wëlee sëriñ sëñ taalambe mi ñu doon wax mu ne ci liggéey bu noppi nag moom itam na fi ak xéewal ci liñ doon ndékkee mook sëñ taala xumma sëñ taala moom at mu jot mu def ko si muy sëñ taala taala ñu lay sant bu baax a baax baax li mu fi indi képp doyoon na xale yi soxna Mati si la mooy fi lu mu bëgg muy beñe bu bare bare xam naa ne moom daa daa lekk ba suur rek mooy dañu koy sant bu baax a baax soxna Fati Mbàkke mooy ànd na fi café ak beñe waaye ñoom li may wax rek ñun bu ñu ubbi woon làmb nekk nekk promoteur ñooy togg ñoom ñooy toggal mbër yi ku yàlla dimbali ba toggaloo mbër nag booy toggal seen daara war ngaa sant yàlla ak ka tax nga loola euh, defoo ko waaye ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax a baax a baax bàyyiwuñu kenn ku ma tudd ku ma tudd ndax taa bi moo xat waaye daal sant nañ bu baax li ñu doon wax ci xale yi buñ delloo képp ku am sa xale bu ma jongal jël koo jongal ba buñ weddee buñ nee na xale yi ñëw doone dama kon jongal ndax daaw loolu dal nañu dañu ne ba xale yi war a ñëw am ñu ñëw wat naan ko dama ko jongal wéragut xale bu yeggee ñu tëbës ba suba nga jongal ko bu amee un mois dana mën a ñibbisi te dina wér ñi am ay problème bëñ ma maa leen koy dénk ana xale yi am nañ problème bëñ ñi am problème bët ku dem jël sa doom boo demee taxawal ci saytu ko ba loolu buñ ci yeggee loola mën a mën a wéy ndax daa daa ji xale yi bu ñëwee déwén nañuy demaat tabaski ba tabaski la ñuy dem kooku nag ku am sa doom bu ñëwee bu ko téyee di ko def loolu lenn la war ci moom teel koo def boo boo la ñibbisi mu ñibbisi loolu maa ngi koy dénk waajur yëpp suur bi ñaan nañ ñibbisi nañ koy ñibbisi si daaw loolu gàllankoor noon dafa mujj ma ne ku ñëwut bi sàngam boo ñëwee du dugg ci daara ji kon nag bu ñëwee bi sàngam la ñëw xale yi nañ ñëw te sa doom mu war a ñëw nga naan nii ak naa am na fa dale bi ñu joxe bu fa yeggee bu ñëwut bu ñëwee daal di dugg day def ren day dem feneen waaye daal di dugg loolu moom waxaat naa ko daaw xawoon naa ko jëfe waaye day wéy day wéy parce que xale bi gaa moom day jàng ñu la may ne un mois bu un mois bi joxe na ñëw si na ñibbi si kon damay yaakaar ne xanaa kon dañuy bàyyi kàddu gi sëriñ man yi laa doon leeral rek ci ñuy seqal ci ñuy seqal liggéey bi waaye daal fi ma gën a gën a leer daal mooy jàngalekat yi ñoom daal ak waa daara ji ñëpp rek ñu leen di sant di leen gërëm neexal bu ñu leen jox rek xeeb nañ ko ñoo ngi ñaan rek yàlla gën leen kattanal ndax ñun xam nañ ñoom fi daara jógee xam nañ ko man ñu xam naa ko ñun genn wàllug lii ñu am yàgg na mun ñu ko am genn wàll gi ay at mun ñu am genn wàll gi moo tax fere yi moom lu lu mu bari bari waaw moo tax fere yi moom lu mu bari bari xeeb nañ ko ndax dañoo xam fañ jógee fan la fañ jógee ak fi ak fiñ fekk ñëw biñ ñëwee mu ne fa ñun ñëpp ñu ko ngéeje waaye ñëpp ñu bokk ànd jàpp bay am euh, résultat bi ñu am ah sant nañ nit ñoom bu baax a baax a baax ki xamut fu ñu jógee nag moom du xam foo toll waaye mu xam fa nga jógee xam nga fi nga toll kon ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax am na ci ñu fi amuñ alxames amuñ ajjuma dañuy jàngali suur yëpp heure ma ñëwee alxames mbaar mi laa ni fekk jàngalekat bi alxames moo ko moom moom ajjuma kon nag ñun li ñu def ci ñoom tam dañuy jàpp ne xeeb nañ ko ndax ki def li la war moom faaw rek ki nga si xel mooy itam mu def li ko war kon wasalaamaaleykum wa rahmatullah ma ñëw di sant sëñ Aly Thiam moom yor école bi ñoom ñoom ñent lañ comme alxuraan ji ni koy seetoo noonu lañu seetoo école bi ñoom sax trois mois yu ñëw dem ci école bi sëñ ma Yacine moo leen fi andi woon boole ko boole ko ak sëriñ ñu ne ñu ci liggéey bi waaye ba fi ñëwee ba léegi ah rëccu ñu ñun rëccuwuñ ko ndax xam nañ fi njóbu njàngale mi rëccu temps bu wax bu ne ci ñoom la ale moomu nag dañu ko bëggoon jox ab kado am ab mbasee bu mën a jullee kon sëñ ma yow la ñëw nga jox suñu àll ab neex ab neexalam sëñ ma Yaasin Seck bu bu nabee bu nabee sëñ doog a ñëw xanaa ma doole ci rek sëñ daa yéen téyel gone yi sëñ daa yéen téyel gone yi ñoo leen di sant bu baax ren dama ko changé dañaa jël xale yi yóbbu Touba muy metti mais ren nañ dajale sëñ daa yi ñu fekk ci xale yi ci mbaar mi ñu téyel leen mu gën a leer ci noonu waaye nu mu daan baaxee rek gën na ko baaxee ren kon ñu leen sant bu baax ci daal seen taala jàng ñu ko séqal seen taal ah? waaw moo ko ñu woo alaaj sëriñ ñu jël kàddu alaaj incha allah te xam ne barki bi sëñ bi damaa wóolu ma ñëw sëñ Muntaxa mu ne ma yaasin yéen da ngeen a war a góorgóorlu de ndax sa baay kenn gënu sëñ Mahmad ak ñooñu kenn gënu leen kon yéen. asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah waa xam naa kàddu yi moom du bari weesuwut ak cant rek ndax lu mel nii bu amee it. aman daawak daaw jéeg dara waralu ko lu weesu ñii fi toog te nangu fe nekk tey jàngale ñi fi nekk tey jàngale ñoo ko waral ak ñii taxawu ñiy jàngale ak waa dëkk bi jàppale ñiy jàngale te ñoo ñëpp kenn koy def nga ko sa mbirum bopp te noonu la deme sëriñ Fallou yi tudd na leen ko mbir mi kenn moomu ko kenn moomu ko ku ñëw ci nga kon ku ñëw it mën ngaa ñëw defarte kenn ku ne yéen nag am na fi foo mën a jàppe liggéey mi ngi ci kon bu ko kenn ñeeblu na ko ñëpp jàpp na ko ñëpp jàpp rawatina nag yéen ñi nga xam ne yéen fi dëkk ak ñii dëkk ci tund bi ndax buñ koy wax ñoo ñoo tax ñuy wax kon loolu rek la ñuy sante waa ñi doon jàng sant nañ leen lool buñ ci delloo wax ju bari lay war te du jariñ lu bari Fallou Seck dégg naa mu sant leen ñuy jàngale français bi it ku ne xam na ni ay jàmbaar lañ ñoom itam sant nañ leen suñu àlle ci am ñoom ñu leen di jàppale tey jóge ba Touba lu xat-xat ak lu taw-taw ak lu weer waxat-xat xam nañ ne ay jàppale la kon sant nañ leen moo tax ma ni kàddu yi du weesu kàddu yi cant waa dëkk bi waa dëkk yin wër monsieur le préfet monsieur le maire chef de brigade ñëpp jàpp nañ ci yëf yi kon yéen ñëpp sant nañ leen ak bokk yii nga xam ne saa yu xewee kenn ku ni dana ñëw ñi ngi nii toog kenn ku ni ñii jóge nañ Ndakaaru ñii jóge Touba ñii jóge fu ni te kenn ku ni am nga loo doon def tey jii loo xam ne nii la ñore kon sant nañ leen bu baax a baax di sant baay bi ñëw jëmmal ko it muy baay Seex Ndongo ca Cilmaxa daaw dañ ko fee def ñu yeex ko ko yëgal te tund wii moo fi suñ baay moo fi mag mate ko lool ma yërëm ko lool ci at yi moo tax mënoon ko boo bàyyee ba une heure rek nga ñëw wax ñaan rek waaye mu ni moom day ñëw waaye mag mu baax a baax la nan ko ñaanal mu yàgg fi lu la yàgga yàgga yàgg te ànd ak foog man ku bëgg lu baax la ku bari wëllëre la yàgg naa ak sama bàyyi lool ginaaw mbokk gi kon waxal naa leen ne kàddu gi moom liggéey bi du ma ci dugg ndax liggéey bi moom ñi ko doon liggéey rafetal nañ ko def nañ ci liñ man kàddu yi rek la jigéen ñi doon togg ak buubaka fóotal xale yeeg yëpp sant nañ leen bokki dëkkandoo yeeg bokk ñi ñi xam ne dëkkandoo wuñu tañ bokk lislaam ji ñoom ñëpp ñëw nañ jàpp ji kon sant rek lañ mën a def waaleykum salaam wa rahmatullah kon yàlla nanu yàlla dolli ndimbal tey ak ëllëg yàlla yàlla saa borom jàppandal seen i mbir tey ak ëllëg gone yëf yi yàlla na yàlla saa defal leen barke yàlla na saa borom defal leen barke lu fi waay amee yàlla nay barke ak ak seen i nag yàlla man na ko yàlla na leen jubal defal leen barke tey ak ëllëg nan lool wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu jërëjëf. moom fa doon jàllale muy mbindu mbindu mbindu mi bindu ci xale yi dafa mel ne daara ji fi ñu doon dafa yegg foofu jël ay xale yombatu yombatu ndax fi fi ñu toll la ay am na jamono dañu daan jël bay jël ay quatre-vingts fi ñu toll nii nag wax dëgg yegg nañ foofu moom du yombati. nit ñi bokk xamandoo damay lay ba sonn waaye li may bind sax li muy néew néew pour ñu am fuñ dugg yomb ndax école bee tax boo génnee ci alxuraan dugg nga ci dugg nga ci bi bu kenn génnul doo am loolu remplacé booy jël dangay jël bu yàggee da ngay jël waxuma sax bu dee njàngale mi amul problème waaye nag dëkkuwaay yi moo ko mëteetul faaw rek dañ nit ñi dañ ko bokk ndoo xam xam nañ ne ñëpp bëgg gi fañ toll xam nañ ko waaye nag li man di nga mën tam nga di ko def baax waaye bind nit bañ yàgg ci nga ko du ma la jël man dama koy ragal kon nag na ko ñëpp xamandoo waxtu wu demee ba nekk waaye gën a dolli gën a yaatu kuñ bindee la jël ndax loolu dong lañ bëgg waaye fi ñu toll nii moom toll nañ foofu jël gi du nuy ma du amati waaye daa mënut a bari kon na ko ñëpp bokk xamandoo